Station jërëjëf bokk internetu Dakar Live TV ñu toog ak ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Anta Cheikh ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi ñu la jaayee jaalee euh, li ñu bokk euh, tey wax dëgg yàlla mu nekk sa moitié yàlla suñu borom jël ku nga xam ne sax sori woon na sa xol euh, ginnaaw bi tey nan ngay dundee métit bi boo nuyoo sénégalais ba noppi. waaw waaw di santaat yàlla rek ah di santaat yàlla di julli ci Seydina Mohamed di nuyu àdduna di nuyu samay mbokk samay xarit samay am di jàmm. parce que bu ma limee rek damay jóom mhm. waaye maa ngi nuyu cuut mhm. waaw di santaat yàlla rek moom mi nga xam ne moo ma ko joxoon moom moo ko jëlaat kon du ma def lu dul rek sant ko ndax euh, ab jaam moom fekkente ni suñu borom moo ne faalu li ma yurit moom dem lu ko soob rek mu def muñ rek mhm. ginnaaw lu Cheikh tey naka ngay dundee wax dëgg yàlla jullit nga gëm nga waaye nooy dundee mbir mi parce que tey ñàkk sa soxna mooy ñàkk sa moitié tey nooy dundee mbir mi. waaw ah ñu dundee kay dafa naa wax naa ko. waaw du bëgguma cee revenir waat sax ndax su ma ci delloo. amaana am na mbokk mbaa xarit boo xam ne bu ko seetaanee dana ko blessé waaye daal li foor laa ñàkk loo xamante ni bii. lu foor laa ñàkk daal lu fort laa ñàkk parce que parce que waaw mu ngi noonu. sant yàlla mais mais tey sànq dañu nangu ay kàddu ci famille bi. ñu wax ni Cheikh Anta dafa gërëm soxnaam gërëm bi euh, ñu toog ak sa Cheikh Anta dañu bëggoon xam lan moo ko waral parce que lu jafe la am sa soxna mu génn àddina nga taxaw di ko gërëm du ko waral. waaw ki dugg ci yow ba nga mënut amoo doo dara kenn xamul la yàlla booleeg moom ñuy wàcc ci sa néeg. sa yaay la jëndal mat laa bu muy fanaan nga def moom fukki at ak juróom-ñett musta fay mosoo ko laaj dépense mosoo ko jox depaas mu tàqal ni mosu la lu koy gërëm sax faatu maanaam ci gàttal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel waaye daal bu dee ni jigéen moom bu liggéeyee borom këram ba wàcc te borom këram moom ñun gërëm ko te muy dëgg ndax moom mi ngi ci dëgg de man maa ngi nii ci fen te li ma wax dëgg la ñàkk naa loo gaaw dootu gaaw a am waaye nag yàlla du jeex na maa ngi euh, ginnaaw loolu ñu bàyyi rek euh, euh, am na tristesse am nañ lu nu bett trop parce que defe nañ ne kuy sëy ci kër ba am fa lu mag juróomi doom wala lu ko ëpp ñaan nga yàlla bés toog sa njaboot fay la ndax sonn na suñu kër gi sonnal na Cheikh Anta miy jëkkëram sonnal nañu ñun ñi nga xamante ne ay jàmbaatu Cheikh Anta lu nekk mu daj ko fi ma fekke donc moom tey su génne àdduna naqar bu ma am tey mënu ma koo exprimer wax dëgg yàlla dama koy ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaare ko aljana te xam naa ne mi ngi aljana waa bi jaw na dafa nekkoon jigéenu muñ kam nekk jigéenu sëykat nekk jigéenu jàmbaar kenn mënu xam lu mu am ak lu mu ñàkk mu muñal jëkkëram lu kenn dul muñal jëkkëram mu suturaal jëkkëram lu kenn dul suturaal jëkkëram man nag li ma ci fekkee dafa bari donc mën naa wax lu bari ci moom ami nitu aljana la xam naa ne dafa am mission bu mu waroon accomplir boo matee rek yàlla daf ko jël ndax koo xamante nii am na sutura Ami Jaw mu ñëwee da day togg ba mu rafet day togg ba mu bari jox ñu ñu lekk lu nekk mu daj ko fi kooku daal sama xol dafa fees daal vraiment. noo Ami chaque ci conseiller ma laa daan dëkk. Pape defeel nii waxeel nii jëndal kër dugal sa yaay dimbali sa yaay. buggoon naa ne tey mu fekkee waaw bëggoon naa tey mu fekkee mais nag àdduna saa su ne yàlla kenn du xëjoo moom daal mënu wax ci Amy Diaw parce que dafa sori ci man